Diop. ñu leen euh, nuyu bu baax waa pencum jokkul nag ñu ngi ci xeexum euh, euh, immigration irrégulière bi. depuis Tëngéej le 19 dinañ am benn commuté de sage man mi sax si laa bokk yi dinañ toog waxtaan. ak sa jokkul yooyu xool nees mën a def ba dakkal. waaw jigéen ñi parcelle également ñu ma mën a dakkal noonu la ñuy def nag fu mu nekk nii ay dem si fent waxtaan ak ñoom hmm. xamal leen ne peut-être gaal gi du solution tey jii nag dañu koy door ak nag yéen kay groupe des médias ndax euh, ñun ci boppam ñoo yëg tey ci kaw tribune bi hmm. ndax tey dañuy fàttaliku euh, quarantième jour gannaaw ba ñu ko dencee ci biir suuf moom i euh, Bousso Seck moom i Dani nekkoon sunu njiit fii ci kër gi Euh, tey ji nag mu am 40 euh, jours ah euh, ñu ñu denc ko ñaan yi daanaka dañuy fàttali rek ndax ku si nekk ñaan yi yaakaar naa ne benn la quarante jours yi nga xam ne nag tey ji njiital kër gi di boroom këram di Bougane Gueye Dany daf si def témoignage yu yoo xam ne ni ku ko ku ko liir tey sa xol dafay tooy mm-hmm. ku ko liir sa xol dafay tooy ndax dikkaat na ci digganteem ak Momy Bousso Seck photo bi koy photo bi koy illustré rek boo ko xoolee xam ne complicité moo amoon ci ñaar ñi xam nga dañuy dem naan nit ñi buñ bëggantee dañuy dem ba niroo <laughs> boo ko xoolee si sa soxna da ngeen di dem ba da ngeen di niroo euh, moom la ñu gis ñoom ñaar ñi danga naan ay seex la wala ay ay ay rak mm-hmm. yoo xam ne ni ñoo bokk photo bi regard bi nga gis nii nga xam ne regard bu sincère bi nga xam ne moom la ko moom ngi doon xoolee sourire bi nga xam ne moom la buggaan andi ci ci ci photo bi muy mbégte mm-hmm. complicité bu amoon seen seen seen diggante mm-hmm. buñ la waxee ne tey kii wàññeeku na dalay woon wóor ne kon kii nii nga xam ne moo nekk di di di am na lu lu rëy lu jóge ci moom. Mm-hmm. moo tax nee na ko Bougane ay wax. Mm-hmm. maam Seynabou Seck mooy sama waajur bu jigéen de kenn mënu koo dindi. Mm-hmm. mais yow moom it bu sa Seck. da nga ma taxawu ni waajur bu jigéen di taxawoo doomam. Bougane mooy wax. je n'aurais jamais imaginé que cette maladie silencieuse sournoise et tueuse ruinerait donc la vie d'une femme aussi sublime est magnifique que mm-hmm. jàngoro joo xam ne nii daanaka kenn xaaru ko woon. Mm-hmm. te moo ne dund naax moom ñaataat. juróom-ñeenti juróom mm-hmm. demoon ba am ci yaakaar. jàngoro jooju tey moo ko yóbbu. tu me laisses orphelin de ta présence utile protectrice et opportune euh, ndax lu doy nii bu jógee ci yow fa mu manqué la. Mm-hmm. na mu la jige woon mm-hmm. ak liggéey bu am solo ba nga xam ne doon na la ko def di la ko taxaw mm-hmm. bugaanay wax ba tey nee na que j'étais ta priorité wax na ko ci témoignage yi nee na que sa yitte yëpp man la woon buñ la gisee si mbeddam bi yee boo jaru laaj foo jëm sama yitte ngay dox ndeysaan ton unique choix man la woon benn choix nga amoon man la ba tànn jotee da nga naa tànn ba matale liggéey bi jotee danga koo matale ba dem jotee yi dem nga ci ni mu gën a sell mu ne Allah m'a choisi en te mettant sur mon chemin il y a 17 ans kon def nañu 17 ans ñoom ñaar. ndeysaan. mu yàlla mi la teg si man si la booleex man yàlla mi la booleex man. Mm-hmm. noonu kooku am ma fayam. dëgg ndax jëmm ji mu tànn boole boole man. Mm-hmm. nee na nag femme du monde femme d'Afrique. femmes du Sénégal, genoux à terre, je vous demande pardon. Pardon d'avoir découvert avec la maladie de maman Momi l'amplitude et la plénitude de vos charges. parce que nag nit ki bi mu dëddoo da ngay gën a xam lan mooy njariñ bi la nga xam ne moom la doon joué role bi mu doon joué nee na Momi dafa dem mu doo a xam jigéen ñi lan la ñuy def ci biir kër yi. charge bi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ko amee ci biir kër gi soxna su baax day fexe day jël boroom këram def ko priorité réussite boroom këram mooy mooy nekk yitteem sa lay xëy si lay gont te sa lay fanaan it ay doomam nekk si jàmm sa lay xëy sa lay gont sa lay fanaan mu ne charge boobu wee weesu na sax say borom kër waaye sa njabooti boroom kër it nga xool saa su ne nan lañu war a mën a bégee ci yow nga war nga war a mën a di liggéey ngir sa boroom kër nga mën koo jàppale nee na loolu yëpp dafa dajoon si moom mi bu sa sekk bugaanay wax ba tey de nee na ko nag dafa am loo ma sasoon 2018 ba may tàmbali nga ne bu ko wàcc mukk nii nga taxawee ngir fekk ji askan wi ne da ngay dem pour fekk ji sénégalais yi waxtaan ak ñoom séddoo seen coono bu ko laajee nga jiite réew mi ngir taxawu senegaal nee na loolu bu ko wàcc mukk nee na ko loolu nga ma sasoon tey jii duma ko wàcc mukk maa ngi lay ñaan fa nga nekk sa wetu sunu boroom ndax njort ba rafet am na nga may ma ma delluwaat ci terrain politique bi ngir mën a mottali sa yéene yéene moomu bu sa sekk moo nekkoon lan na buggaan jige askan wi jàppal leen ni ma ko woowee séddoo coono yi lii mu sumb di présidentiel yi mu demee si moom moom moomi ni mu ko bëggee woon nee na nag saa bu ma jaaxee dama daan gestu yow laay gis mësuma bind posté te fekk liiroo ko corrigé woo ko lu ma mënti wax jàppal ne kon déglu nga ko ba pare ma doog am fit wax ko kon nag dama lay ñaan nga may ma ma delluwaat ci terrain bi mu ne bu leen bu mu leen jaaxal ndax programme am pàcc bu yaatu la ci jagleel jigéen ñi pàcc bu yaatu la si jagleel jigéen ñi. donc Bougane Gueye Dany boo liiree texte bi daanaka dama si jukki as lëf rek mënuñu wax lépp tey ji ku ko liir sa xol tooy. donc waxee na xol moom euh, euh, euh, Bougane ci kii nga xam ne mooy moom yi Momy Bousso Seck ñu ñaan ku si nekk fa nga nekk jamono ji nga ñaanal ko parce que mooy li yëpp solo. Mhm. boroom këram ñaanal na ko xel dal na donc ñaanal leen ko bu leen ci tàyyi ci foofu ngeen nekk ku si nekk ak fa nga nekk ak sa la nga gëm ñaanal leen Mamy Bousso Seck nga ne Asma moi j'ai aimé cette partie où il dit jours sans toi c'est une éternité je me croyais fort je me croyais grand je me croyais puissant tu m'as tout donné ton amour ta grâce ta douceur ta convivialité ton engagement ton savoir-faire professionnel et ton savoir-être J'avais ta compassion à chaque épreuve vécue dans l'intimité de notre si fusionnel couple et ta générosité sans faille. Tu as su garder mes secrets, protéger mes biens, porter, éduquer mes enfants. Tu m'as enlevé, euh, avec beaucoup de persévérance l'orgueil mal placé des hommes. Très bien. Ça c'est mm. fort. lu jógee ci xol ci xol lay dem. Bougane li muy wax nii ci xol lu jógee. donc ku ko dégg sa xol lay jubal directement donc jigéen ñi ñuy ñu ñuy teewlu ngeen am ay borom kër fexe leen ba am gërëm ga nga xam ne moom mi bu sekk mi am na ko séede bi am na solo trop jigéen ñi di sëy xam leen ne dañ koy faral di wax boroom àlluway diis yi seede borom kër de lu am solo la si ñaan sa caabi àjjana mi ngi sa tànki borom sa kër wala ci loxoom donc fexe leen ba seen borom kër kontaan ci yéen amin amin El Hadj sànq bi léegi moo ngi def ñaan mi ngi nañ ko fi daawal waay loolu loolu moo ci am am am solo ah te xam nga heure bi parce que mag ñi dañuy voilà dañuy wér daf lañ di fekk mhm. seen sijaada nañ ko mhm. ñaanal yàlla mhm, la ñun ñii ne fi de leen na xamal ko ñuy dund nii moom daal xam naa ne ku jara jar na xam nga alim saxaaba la nekk mbokk yonent bi mu jël sa turandoo Faatumata bintu yaa Rasulullah jox ko ko moo tax dama xool nii texte bi mhm. sama xel na yar ci loolu Sërif Xataab sama rakk ne ma mhm. doom ji daa ñëw wax gën gi mbindeef ne ko sa mhm. sa waa ji ak a tànk laay laa dugg na fii génn fi mu ne ko rek mu ne ko mbaa mer woo ko déglul de bàyyam ne ko mbaa mer loo woo ko Faatumata bintu yaa Rasulullah ne ko ah waaye mujj na maa baal papa ñu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin Faatumata bintu yaa rasulullah wax baayam ne ko waaye baalu naa ko lu tollook juróom benn fukki yoon ak juróom-ñeent. ndeysaan. 69 fois ci 70e bi la ma mu ne ko santal yàlla bu la baalul boo dee ci diggante bii la may nekk sa baayam safara nga jëm. ci yàlla ah, kay kàddu yu mel nii ku ko jël jagleele ko sa soxna kooku nit àjjana ma liiree texte bi léegi. ci xista boobu la sama xel mi dem. moo tax ma ne moo tax mu ne ci buntu néegam dafa bindoon bienvenue à si le monde de MDG Momy Dany Guèye. tey en tout cas waajaloon na boppam ba dem waajal ko bopp ngay suuf ngay def ngay dox ci lu baax. te xam na lu baax loolee ëllëg moo lay fekk ji moo lay fekk ji. yàlla euh, ñëpp ñun ñii sëy. Ah, ah, seede bu mel nii dafa am solo. seede euh, Abdoulaye Ndiaye mu ngi nekk DTV moom it. Euh, mi ngi euh, <laughs> seede moom it Bousso Seck mi nga xam ne nee na kuy njiitu entreprise daanaka war nga roy ci moom euh, Abdoulaye Ndiaye DTV na sama waaj bu baax mu ngoog ëpp le point actu daanaka def si ñëwaat quarantième jour du desee de moom Momy Seck Bougane dévoile ses contemplations en tout cas lu mu ci bind tey ji ñaan nañu ñëpp nañu ko dem jën jëndi tribune daal di koy lire mu ngi ci point actu également ndax am jàngat la te borom kër bu nekk war na ci roy waaye jigéen ñi nga xam ne am nañ boroom kër mën nañ ci euh, roy malgré la douleur que tu m'as euh, donc caché tu te battais pour m'offrir ici un sourire euh, Bougane Gueye Dany ci ay témoignage ba tey li des ci actualité bi nag point actu daal dina si ñëw retrait des enfants de la rue l'opération a-t-elle été bâclée en tout cas démb jot nañu ko waxtaanee mu mel ni it Fatou Diané craint à la plénière de l'Assemblée nationale la collège des députés sur la problématique du retrait des enfants de la rue quel leen ne kon xale palaasam du mbedd mi xale palaasam du yalwaan yi xale palaasam ca kër ga la xale palaasam euh, sa